son son sonn suñu problème dafa yàgg ak euh, assainissement moo tax même maire bi ba ñuy njëkk waxtaan ak moom ba mu ñu waxee assainissement rek moom mooy programme am ñun dañu sawaroon pour euh, voter ko waxtaan ak moom xam nga mais depuis parce que yàgg na trop de tout le temps mais ñun ONAS dafa mel ni mosuñ ñu respecté ONAS ñoom euh, problème mu dóor daal moom moo moom moo ni booy di wax dóor ñoom loolu mooy bu ñu kaasee tuuti ñu ñëw pompel ñu pousse affaire yi dem xam nga ñu dem seen yoon chaque trois jours quatre jours ñu woo ku nekk ñun ñëpp suñu numéro yi ñun ñëpp dafa mi ngi foofu onage waaw mais cette fois si dafa affaire bi dafa jéggi dayoo parce que ak liggéeyu BRT bi Euh, pratiquement tous les trois jours ñoom dafa mel ne comprendre nañu ce qui se passe problème bi dëgg dëgg dëgg xam nañ ko parce que ñun benn euh, colonne vertébrale bi canal bi jóge na la ñëw ba nii moom mooy principal bi nga xam ne ñëpp fa la ñuy jaar bu ñu jógee fii jaar dem fekk ji BRT bi donc à chaque fois bu ñu leen wooyee bu ñu ñëwee ñoom am nañu xam-xam ci domaine bi. ñun loolu la ñu jàpp ne moom mooy parce que fa la euh, canal bi colonne bi ñuy wax nii centrale bi muy fekki foofu la nekk. bon dem nañuy xool du ñu gis centrale du ñu gis dara xaw ma dañ ko suul xamuñu exactement ce qui se passe mais euh, foofu mooy aboutissement bi parce que ñun dañ daan débrouiller sax des fois ana am na benn gosse guerrier de tous les temps Ali la tudd moom da daan ñëw si centrale bi risque coup bi mais à chaque fois bu defaree affaire bi dem mais cette fois-ci depuis presque bi BRT bi commencé ay quelque temps après depuis boobu chaque trois jours affaire yi mel ni chaque trois jours affaire bi cette fois-ci nag depuis trois xaw ma quatre jours affaire ak doole dafa mel ni dafa fattu complètement waaw eh, eh, ah. eh, waa ONAS bi bi ñu fi ñëwee lan la ñu wax. non bu ñu ñëw ñoom déjà dañuy wax ne ñoom seen liggéey lan la moom mooy que ñëw soulager ñoom ñoo ñoom la maa leen koy wax de face nii ñoom dañuy wax dañuy ñëw bañ na bu amee bouchon ñu ñëw déboucher dem dem seen yoon loolu mooy sigee même bu amee canalisation bële regard bële am na oto bu ko toj euh, fourchette yooyu bu ñu ñëwee wax leen ko. dañ ma ne non da ngay woote waat nga déclaré ne leen affaissement la xam nga affaissement la donc il faut nga woote waat ma woote waat plusieurs fois fu mu nekk am na au moins une quinzaine d'appels mais yëpp même réponse bu ñu ñëwee daal soulagé après demaat seen yoon. maire bi est-ce na ko. maire bi euh, si wax nañ ko wax nañ ko démb relancé nañ ko waat démb mu ne moom nekkul si compétence am mais si suñu kanam on était benn groupe bu ndaw si suñu kanam mu woote foofu ne woo naa seen chef dinañ fa ñëw. xam nga ñun ñu doon xaar pour bu ñëwee seen chef boobu bu ñëwee wax pour mu ñëwee ñu expliquer ko suñu problème wax ko ñun solution durable la ñu bëgg waaw. Euh, léegi de solution bi moom lan loolu bëgg ngeen léegi. non ONAS ñëw mu liggéey ko liggéey bu sérieux bu fekkente ne fële la si BRT bi la ñu lijjanti ko mais on a l'impression xam nga dañuy njort rek on a l'impression que ñoom dañu euh, nar ko fàtt noonu ba seen liggéey bi fii pare ñu soog ñu ubbiwaat. te gis ngeen li nekk si biir kër yi kii kenn mënul dund nawet baa ngi ñëw tabaski baa ngi ñëw xale yi sonn nañu quoi vraiment vraiment non fi mu nekk nii boo xam ne bougé wul depuis pratiquement ay deux semaines yooyu boo xam ne nii la affaire bi demee par compte-goutte lay dem mais non ñun de tous les temps la de tous les temps la mais bu mujj bi nii nag depuis BRT bi ba léegi affaire bi dafa accéléré ba pare day toog par trois jours léeg-léeg après mu soulagé mu toog mais cette fois-ci on a l'impression dafa bloqué complètement ñun euh, fi mu nekk nii la plus haute autorité suñu wax si moom lay jëm directement parce que comme fii ñëpp si moom la ñuy tourner ñu tourner moom si moom directement ñeneen ñi topp si lignée boobu di ñu comprendre ñoom moom xam nañu fu moom fu muy mun a waxee bu joxee ndigal ndigal bi ñoom ñemewuñu ko dinañ ko ñun solution durable parce que dafa tombé ñu dund calvaire bi xoolal euh, latérite bi latérite bi ñu ngi koy dund depuis ay mois un un mois avant élection euh, euh, waa deux mois avant élection yi kii lañ ñu ko doon naxee pour ñu voter leen si élection yi depuis après quelque temps avant élection yi ñu arrêté après élection yi ba tey nag ñu ngi indi latérite bi di dër di dem di ñëw di tër di dër ñun xoolal ñun ñëpp niroo ñun ñëpp niroo fi mu nekk ñun ñëpp lat xoolal couleur ñu am ñun ñëpp dañoo chômeur lii mosu fee am dañ daan buuse nag waa ONAS mënuñu leen a sëkk parce que saa yu ñu leen woowee ñu ñëw débuseel ñu mais bii ñoom si yëm jëm bopp ñoo ñu wax carrément ne mënuñu si dara nañu dem gis suñu maire waxante ñoom ñu yëkkatil ñu suñu tiwo tiwo bi dem waa BRT bi fatt bi ba seen liggéey pare waaye ñun balaa boobu ñun ñu ngi dee ñun lekkatuñu naanatuñu mag ñëpp tëdd nañu feebar xale yaa ngi feebar ak tabaski bii di ñëw nii yéen gis ngeen kër yi ni ñu mel ak nawet bi ñun bu xiinee sax ñu tiit nañu dimbali ngir yàlla ayant bi yëkkatul ñu leen suñu assainissement bi di dem na daan demee ñun ku si nekk am nga solution nooy def ba nga xam ne buuse du la sonal waaye bi yoon nag fa mu waroon a jaar la mënu la jaar ndax ñoom ñoo ko téye kon ñun sonn nañu loolu tax te ñu génn di yuuxu sonn nañu fu sonn yem ñu ngi ñaan li waaye war a sóoli Macky Sall yàq sa gouvernement dimbali leen ñu si face Louveau ñun lii mooy suñu problème amuñu benn problème lu dul problème ñu dem bañ fa demee suñu xol sedd na ci moom accueillir nañu waxtaan nañu wax ñun def ne carrément du compétence am waaye dina sef lu mu mën wax nañu boppam mu woote si saase nag xam nga pour ñoom ñu ñëw waaye ñoom tam bu ñu ñëwee dañuy xam ne ñoom carrément ñoom tam lii mootuñu si dara waa ONAS ñun waa ONAS parce que ñoom Fass Louveau bii xaw ma kan moo ko xamul waaye waa ONAS xam nañ ko fu ñu buusee ñu woo leen parce ñun Fass fii def naa ne Dakar gi bu ñu fi jutul kenn jutuñu fi kon suñuy tiwo moo nekk sa suuf a suuf lu am ñun ñooy gën a sonn loolu moo tax waaye mosu mosu ñoo woo waa ONAS te ñëw ñu saa ñu leen wooye dañuy ñëw waaye bii nag ñoom ñu si dara carrément nañ yëkkati tuyau bi daanu nañ ko ti ndox mi dem fa mu daan dem ñu ne loolu la ñuy ñaan loolu la ñu loolu la ñu bëgg sonn nañu suñu doom sonn nañu suñuy mag ñu sonn mënatuñu fo mënatuñu génn tabaski bi di ñëw ñëpp tiit mënatoo sa lekk mu neex ñëpp feebar fi mu nekk nii nañ ñu jàppale ngir yàlla waaw sonn nañu waaye sonn nañu fii ñun Fass dañu mos sonn ci affaire yi situation yu demee nii muy Ablaye Wade muy Macky Sall ñoom ñëpp fii leen jaar Abla Macky Sall mii mujjee ñëw nii si nekk sin président de la République fii la jaar ci kër Thiamel nii la jaar amul luñ fi doxul ñuy ñaan wallu nag ñu jàpp ci affaire bi dimbali ñu benn ndox bi mun a dem parce que ñun soxlawuñu dara lu dul loolu nekkuñu ci lii nekkuñu ci lële. il est là pour le peuple ñu ngi koy ñaan wallu askan askanu Fass loolu la voilà maire de Dakar tamit ñu ngi koy woo Barthélemy Diaz pour mu jàppale ñu si situation bu ñu demee nii waaw ñëpp la ni ñaan voilà ça ça ne pas dire que nii yeewu askan bi gañe na fii rek mooy euh, président waruñu jàppale ñun ay njabootam leen waaw war na si def dara ndax suba moo tax waaw loolu la amoon pour wax voilà merci ñu takk morso yu xonk bu leet ñu doog a takk morso yu xonk ñu ngi ñaan wàllu nag ndaxte sonn nañu voilà merci voilà mi ngi gars yi sonn nañu trop trop trop voilà merci